nous saluons tout le public présent ici. Les organisateurs privés du Hajj, à travers le Renofis, ont convié les médias à ce point de presse pour attirer l'attention des autorités, des pèlerins, mais aussi des acteurs du pèlerinage à la Mecque sur les urgences de l'heure. Nous commençons d'abord par saluer l'étroite collaboration entre les autorités et les organisateurs du Hajj, collaboration qui a marqué le dernier pèlerinage et qui avait permis de trouver les solutions idoines aux problèmes tenaces, notamment la question du transport aérien que nous avions tous vécu ensemble. Nous précisons que les voyagistes privés convoie 11 000 pèlerins sur les 12 860 qui constituent le quota national attribué au Sénégal. Pour cette année, l'Arabie saoudite a déjà établi depuis le mois de juin le calendrier du Hajj qu'il faut absolument respecter. Ainsi, les opérateurs toutes les opérations du Hajj 2025 démarrent ou ont été déclarées depuis le 4 septembre dernier et que les rencontres avec les commissariats généraux au pèlerinage devraient être clôturées au plus le 23 octobre prochain. Donc euh, on est quelques jours de la clôture n'est-ce pas, des rencontres au niveau de l'Arabie saoudite entre les autorités saoudiennes, n'est-ce pas, et les pays de la Ouma. À partir du 19 février 2025, soit 10 jours, soit 10 jours avant le début du Ramadan qui est prévu le 1er mars, les premiers visas devraient être édités. Ce très important. Et ceci, donc ce fait, suppose que au moins deux mois avant cette date, deux mois avant cette date, les opérations devraient débuter, les inscriptions devraient démarrer, l'aviation ou la compagnie aérienne choisie, les contrats avec les logeurs terminés. Et là, c'est un point extrêmement important pour une bonne organisation du Hajj. Il faut surtout souligner, dans le cadre de l'aviation, que nous ne pouvons pas signer les contrats de logement sans avoir le programme des vols. C'est pourquoi les voyagistes privés appellent à une ouverture des inscriptions le plus tôt possible et s'engagent auprès des autorités à apporter leur contribution et leur expertise à toutes les questions relatives à l'organisation du Hajj, notamment les questions de l'aviation, donc de la compagnie aérienne, de la gestion de ce que nous appelons communément l'étape de Dakar, donc c'est l'organisation des, des, des, inscriptions de, de l'enrôlement des pèlerins, de la gestion des transferts bancaires Les transferts bancaires qui ont été un cas d'école l'année dernière, nous le savons tous, nous, nous, qui sommes au cœur de la gestion du âge. Mais aussi la gestion du portail électronique, qui aussi est le nerf de la guerre, nous le savons tous. Il y a aussi l'épineux problème de l'hébergement et de la restauration à Mouna Arafat. Mais nous tenons, nous en tant que privés, à apporter notre contribution et notre expertise à l'élaboration du cahier des charges qui définit les contours du âge, de l'organisation du âge, particulièrement de cette année 2025. Nous prions le bon Dieu, donc nous prions Allah, subhanahu wa ta'ala, pour que ce pèlerinage 2025 soit l'un des mieux réussis et que le Sénégal retrouve sa place. Parce que quand même, nous avions euh, occuper la place du leader au niveau du Hajj en Afrique occidentale depuis la depuis l'AOF. C'est pourquoi aussi nous prions le bon Dieu pour que non seulement nous retrouvions notre place, mais que nous soyons parmi les mieux classés, parmi les pays les dans le cadre de l'organisation du Hajj et dans le cadre de la Ouma islamique. Nous vous remercions de votre attention.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 RENAFIS di banqaas wala kuréel bi nga xam ne moom moo dajale organisateur privé yi yëngatu ci aj ñoo ko ameel tey pour waxtaan ak kilifa yi waxtaan ak ci ñi nga xam ne dëgmal nañu ren incha allah fas yéene aji waaye waxtaan ak képp koo xam ne day yëngatu ci wàllu aj ndax xëy na jàpp nañ ni jot na dañuy tàmbali di rafetlu liggéey bu rafet bi nga xam ni am nañ ko ak suñuy kilifa tàmbalee ci waa délégation générale au pèlerinage ministère bi nga xam ni moom moo ŋànk lépp lu jëm ci wàllu aj ak kilifa réew mi yépp ci longoo àndandoo yëkkatendoo tegandoo bi nga xam ne ñu ngi koy amal jëmale ko ci wàllu liggéeyu aj bi saay bu jafe-jafe amee ñu ngi ànd di xalaatandoo naka lañ ciy wutee saafara ñu ngi rafetlu tamit ni nga xam ne ñu ngi dugal privé yi ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu jël décision bu jëm ci wàllu organisation aj rawatina saay bu ñuy tukki di dem arabi Saoudite di négocier lu jëm ci wàllu aj bi ñu boole ci privé yi ñu bokk ci waxtaan bi ñu bëggoon xamal askan wi ne Arabie Saoudite na muy organiser aj dafa soppeeku dafa soppeeku ndax Arabie Saoudite tàmbali na liggéey bi depuis le 4 septembre bi ñu weesu depuis 4 septembre ñoom tàmbali nañoo liggéey bi liggéey bi nga xam ni mi ngi jëm ci aju mille cinq bi te ndaje yi nga xam ni Arabie Saoudite daf koy def ak dëkk yi nga xam ni ñoom ñooy organiser aj seen ndaje yooyu ñu ngi ci te danañ ko jeexal fii ak fukki fan ak juróom maanaam le 23 octobre bii ñu dëkk man le 19 février maanaam bu desee fukki fan pour weeru koor bi ci la ñuy xam ci la lépp loo xam ne jëm na ci wàllu visa jëm ci aj bi ci lañ koy tàmbale di ko génne waaye ku ne visa wàllu aj mais balaa ngay génne visa fow fekk na am nga say ujaaj fekk na fay nga sa logement fa ngay dëkk ca Médine fekk na fay nga fa ngay dëkk ca Makka fekk na fay nga sa transport fay sa lekk fay sa dëkkuwaay mun na ak Arafat ngay doog a mën a génne visa te booba ñoom ñu ngi ko natt ci mois de février kon xëy na ñu gis ni la ca des ci ab bëreetul moo tax ñun ñuy suggérer que ni nu ñu def pour mën a teel a ubbi inscription yi rek dafay gën a yombal mbir yi dafay gën a baaxal mbir yi xëy na fii ak ñaari weer gën gaa bëri war nañoo mën a tàmbali inscription yi ndax ñun ñu mën a yeggali suñu liggéey ba nga xam ne war nañ koo def Arabie Saoudite ndax date yi nga xam ne jox nañ ñu ko date yi jege na ñu ngi tàllal loxo autorité yi di leen xamal ni ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk aj bi ci wàllu privé bi pare nañu ànd ak ñoom ci lépp loo xam ne mën nañ ko apporter muy suñu contribution pour que organisation aju ren bi nekk organisation boo xam ne bu mucc ayib la Renefus di kuréel bi nga xam ne moo ŋànk ñi ëpp ci privé yi di yëngatu ci wàllu aj ñi ko composé ay borom xam-xam lañ yoo xam ne koo ci jël am na ñaar fukk wala ñaar fukk juróom at d'expérience ci liggéey bi taxaw nañu vraiment pour ànd ak autorités yi ndax xam nañu fullaal bi ñu fullaal aj bi xam nañu ban daraja lañ ko jox nañu xam ne ñun it pare nañu pour ànd ak ñoom ci liggéey boobu bëri na loo xam ne war nañ cee mën a waxtaan sottante xalaat lu jëm ci wàllu aviation tànnum avion ya nga xam ni moom moo ñu yóbbu moo war a yóbbu Odia ci indiwaat leen lu jëm ci wàllu mbind bi nga xam ne war nañ koo def fii kañ lañ koy ubbi naka lañ koy doxale lu jëm ci wàllu transfert d'argent yi maanaam xaalis bi nga xam ne war nañ koo yónnee Makka pour fay suñuy kër suñuy dëkkuwaay ak suñu yeneen service foofa lu jëm ci wàllu lekkin wi ak dëkkuwaay bi ci mun na ak Arafat yooyu yëpp mu nekk ay problème yoo xam ne pare nañu pour waxtaan ci ñoom sottante xalaat pour que ñu mën a am taxawaay bu gën a rafet waaye fàttewuñu tamit li jëm ci wàllu cahier de charge bi nga xam ne jàpp nañ ni mën nañ ko gën a yeesal waa Renofis pare nañu pour ànd ak nguur gi ànd ak kilifa yi ci ndigalu délégation ak ministère affaires étrangères pour que ñu mën ci am taxawaay bu mat sëkk ñu ngi sant ñi fi teew ñëpp di ñaan borom bi subhanahu wa aj bi nga xam ni moom lañu ñu dëgmal nekk aj bu mucc ayib yàlla yombalal ñu dem bi yombalal ñu nekkin bi yombalal ñu dellusi bi ñu def aj bi ci jàmm am réussite bu rëy a rëy a bi nga xam ni ñu ngi ko doon bàkkee Sénégal démb ak barke démb Sénégal taxawaat place boobu wa ma zalika alallahi bi aziz asalaamualeykum wa rahmatullahi wa rahmatullahi taala wa barakatu maa ngi sant yàlla julli seydina muhammad sallallahu alayhi di doore sama kàddu ci bokk ak mbokk yi nga xam ni ñoo nekk ci gox yu fasantikoo ci Sénégal te waame bi jural leen ay jafe-jafe ñu nekk ci Matam ak Touba yeneen gox yi nga xam ne xamuñu leen wala dégguñu leen dina ñaanal yàlla génne leen ci jafe-jafe yooyu may door sama kàddu ci ndigalu délégué général au pèlerinage docteur Aboubacar Sarr ak personnelam bi yëpp jëmi ci kanam yu tedd yi gor yu baax yi nga xam ni jàpp nañ ni lépp lu yëngatu ci réew mi seen loxo war na ci dugg rawante nag pàcc bi ñu féete muy aj gi am kàddu gi fi jib ci njëlbeen ci ñaan gi waxtu simon bi Abdoulaye Jameen wala te faraxoo la wax mooy fasanti koo jàppee ci buum gi nga xam moom la nu yàlla sant ñu mën cee jàpp ba àgg ci moom ci lay sukkandiku ci wax jooju di gërëm waa Renofis colonel Diong mi ngi ko jiite ak gor yu baax yi ànd ak ñoom ñii nag ñooy ñi nga xam ni li olof di wax ku war togg leen mbaa sa gawar ñaaw ndax bu fekkee ni quota Sénégal day douze mille huit cent soixante pèlerins onze mille yi ñu jox ko gor yu baax yi nga xam ni suñu digganteek ñoom ña ko fas mooy diine ak ngor ak sàmmante kàddu day fekk délégation bi ñoom bu xew xewlee ñu war fee ñëw waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom ci dalal seen xel ci lépp lu nga xam ni war nañ ko yëkk war ko xam te nit nag bu fekkee danga bokk ak moom liggéey te lu yëkkatiku ku ne mu bokk ca ak yow ca ña koy awu lu mu nekk danga cay nekk ba pare wax ko yow ci lan nga nekk première information bi may joxe moo di dëgg la wax nan ko Arabie Saoudite commencé woon na depuis le 4 septembre booba boo tey délégation bi ca délégué nekk ca ba ba ñu ngi yëngatu ci wàll woowu waaye délégation bi dafay banqaas ci de ministère affaire étrangères muy kuréel muy administration administration nag dafa am ay règles yu muy tëdde yoo xam ni feek sa jëwriñ yëkkatikul kàddu wala muy wax la loo war a def mënoo yëkkati benn pexe ak benn xalaat booy lal te doo ko sukkandiku ci ndigal loolu mu la jox la ca war lépp nag ban jógee màkk ci wàllu rapport bi nu war a déposé ci sunu kilifa yi def nanu ko di leen déglu ci li nga xam ni mooy instruction yi nu war a joxe tudd ngeen fi léegi cahier de charge bi bokk na ci xalaat yi waaye day fekk ni ku yepp ku yeew ku njëkk a yeewu boroom ndekki foog nga tëddaat moo tax mënu gunoo avancer ci lenn lu nga xam ni wax nan ko walla ñu mën koo jëfandikoo ci li jàmp te ñu war ko def moo tax fi yëpp ay fan tey ci biir semaine bi walla boog début semaine bi délégué général dina dalal privé yi organisation privée yi wax ak ñoom ci fan la toll ak doxalin wu mu tëral ci fan la ko teg moo tax mu yabal ma ma ñëw tey pour fekke jataay bi ma leen di wax nii ànd ak yéen neex na lool te jàppandi na ndax lëkkaloog boroom xam-xam bu xam yoon wi mu jëm ami pexe yu tax yoo xam ne day sell dëppoog diine ji nga xam ne mooy sunu diine lislaam ànd ak moom ci yoon wi nga xam ni mooy jëm tukki bi gën a neex bi gën a jub bi gën a rëy ci jullit dafay am solo ngay déglu ay xalaatam ak bi ànd ak moom ci wàllu liggéey mbokk yi ñii nag mooy góor ak jigéen ñi nga xam ni lépp lu ab ci aj màkk gi dafa am solo ndax aj màkk gi fi may jeexale ci wolof mooy ñetti ponk yi ko tëdd yëpp bu ci nekk laat na ñu ànd ak ñoom ak ñu mel ni ñoom bu njëkk bi mooy aj màkk diine la quatre-vingt-quinze pour cent population Sénégal ay jullit lañu kon képp kun ko dénk war ngaa waxtaan ak ñooñu ak Makka am na aspect politique aspect politique bi mooy lii ñu nekk tey mooy lii tënk cahier de charge bi organisation bi ak tëralin wi kuréel gi ñu ko jox pour mu mën koo jëmale fi nu bëgg orga pro euh, action sociale la parce que nit mën naa bañ a dem Makka mais liggéey jiw bu nit Makka bari na ci ñun ñoo xam ne bu leen joxoon tey paasu màkka seen yaay lañ koy jox wala seen papa parce que cag ndaw dig na leen ko te ba tey ñi ngi xeñtu yoon wu ñuy liggéey pour mën ko koo defal kon ñetti aspect yooyu bu fekkee dafa tënk aj màkka day laaj ñu nit ñu yaatal suñuy mag ak suñu ginnaaw pour boot képp koo xam da nga cee bokk ñu leen di gërëm di leen sant ci taxawaay bi ci kàddu gi di wax nii délégué nee na ba mu ubbee buntam bi muy doog a ñëw ba nëgën yi tëju ko ubbi na sax palanteer yi pour ku nekk ñëw parce que xalaat olof nee na ko sa xelum bopp doy doyu nit ñi foofu laa doon loolu njeexle asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu monsieur comme disait l'autre c'est monsieur de la ville qui ont compris très tôt qu'il faut un engagement une action citoyenne pour mener à bon port toutes les activités qui régissent notre religion c'est à partir de ce moment que les organisations qui tournent autour du pèlerinage jouent un rôle important dans l'organisation de ce cinquième pilier de l'islam. Le Renofus est une organisation caractérisée par, une, par des compétences et des expériences avérées à la matière. C'est avec cette, cette remarque que la délégation a pensé collaborer avec le Rénofis et d'autres acteurs du pèlerinage pour partager avec eux toutes les expériences qu'il faut. Ils de le dire tous, l'Arabie du Sud a déjà élaboré un programme déroulé à partir du 4 septembre et qui va aboutir sous peu au 23 octobre 2024. Mais la délégation étant une structure d'une administration centrale ne peut pas ne s'engage pas à donner des informations auquel l'autorité la n'a pas encore jugé de les divulguer. Vous n'êtes pas sans savoir que le cahier des charges constitue un écueil qu'il faudrait étudier, revoir, surtout adapter aux conditions actuelles du pèlerinage. Sur ce, le, dé le délégué général au pèlerinage, Dr Aboubakar Sarr, m'a instruit de vous informer au courant de la semaine cette semaine ou en début de semaine prochaine. Il va tenir une réunion avec vous pour vous informer des nouvelles directives de la tutelle, mais aussi de vous informer de sa disponibilité pour vous accompagner dans toutes les actions, dans toutes les étapes du pèlerinage. Le pèlerinage est caractérisé par deux, trois socles. L'aspect social, qui permet aux gens qui ont de l'argent à amener leurs parents ou leurs amis à la Mecque. L'autre aspect politique qui consiste à l'organisation de par les relations diplomatiques qui, qui le Sénégal et l'Arabie saoudite. aspect, c'est l'aspect religieux. Le Sénégal étant constitué de 85-95% de religion, nous devons tous travailler la main dans la main. Messieurs, chers collègues, je vais terminer par une anecdote. On souvent, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Et nous la monture pour participer, pour aller avec vous vers un pèlerinage sans couac. Inch'Allah. Je vous remercie.